di wax lu baax ah di jaamu yàlla di ñaanal sa yaay di ñaanal sa papa mais rog su képp ku am lu baax nga añaane ko nan nga mën a waxee ne Mia Guissé nan nga mën a waxee ne Mia Guissé dafa war a toog xam nga xool ah jéem a toj Afrique jéem a nekk niveau international jéem a du ko engage noonu Mia réussir na Casino di Paris toj na ko loolu féete na boor xam nga yow boo toogee di wax naan ay Mia Guissé dafa war a teey en yooyu kenn du ko jël xamoo parmele su Mia kon Mia Guissé xamoo parmele sam déedéet parce que boo xamoon parmele su Mia Guissé comme li nga yaakaar damay taal sama live naan la rok su katal sa ndey caga bu mag bi almaañ nàngam ci gaale nga jaar ñëpp ko xam caga bu mag beeg yooyu duma ma la ko wax mais dëgg laa lay wax dama ne la nga bàyyi sa moroomu jigéen ñi ngay yàq seen dar maam Njaay Savon defu la dara chaque jour nga taf maam Ndiaye savon maam Ndiaye bu takkee ay or nga mer maam Ndiaye bu amee iPhone bu bees nga mer maam Ndiaye savon bu amee oto bu bees rox nga mer mama naa kii euh, euh, mama virgule bu jubóog maam euh, Ndiaye savon nga mer nogoy kara bu jubóog maam Ndiaye savon nga mer Mia Guissé toj na casino de Paris nga mer kan moo soxor sénégalais yi wax leen ma xoolal rox sénégalais yépp ñoo la jéppi ñépp bañ rox bu ma defee ceew video commentaire yi ngay am la sa stare bañ ñëpp koo wax rox dama soof rox dama koo bañ kii rek laa jëpp ñëpp bañ ñëpp xam nga lan moo tax ñu bañ la xam nga lan moo tax ñu bañ parce que da ngay tooñ rox loolu mooy seen ci Mia Guissé ba nga naan ay dafa war a nekk niveau international du noonu wërta jël saal yu lan mooy sa yoon ci moom lan lan mooy sa yoon ci maam Mame Ndiaye Savon caga yooyu ngay yéegal nag ci sa kaw live yi pour ñuy wax ci Adama baat di sensé rok su neexuma dama ko jëppi ñëpp la bañ gaa yaa ngi nii di commentaire di envoyé ay kër ñii di commentaire ñëpp la bañ ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la jëppi yow mi yaa gisee la gën maam Ndiaye Savon la gën ñi ngay xase la gën jigéen gu tol na yow wa am say doom wala teete say doom teg say doom di leen yóbbu ñu jàngi ah tal say doom nekk ci ñoom ma dox su doo ko def ci kaawu jàmmoor yi ngay topp di dul rek guddeeg bëccëg yaa ngi fen boo fenalul maam Ndiaye Savon yaa ngi duulal Maya Guissé boo duulalul Maya gise yaa ngi duulal Clara boo fenalul Clara yaa ngi ci soxna Aydara boo nekkul ci soxna Aydara yaa ngi ci rakki ay dara boo nekkul ci rakki dara yaa ngi ci Maya Guissé ak ñeneen ñëpp ngay duulal Kiné Badiane gis naa la tey ngay lay di wax ci moom ay bal pourtant na Badiane jigéen la comme yow te jigéen ju baax ba sëy jotee dafa sëy fa war a sëyee Kine Badiane amul ko ko gën fii ci senegal amul ñàkkul fayda te duggul ci ay détails su vocal yi nit rek dañ koo toñ wala xolam yéeg yaa ngi koy wax lu ñaw naan Kine daa ñàkk fayda jëkkëram ji cagala la koy kee rox ci boppam moo bonte soxot la la waxoon tey moom lay répété waat dangaa soxor dangaa bëggoo ko am lu baax ku def lu baax dalay déranger ah soxor nga bon nga iñaan nga te ñépp ko xam live bi yépp xam na ne dangaa bon wala yow xamoo li ma aw ma taa déedéet waaw ma jóg bon nga iñaan nga sénégalais yi neexoo leen jéppi nanu la ñépp la bañ koo wax ci Sénégal mu ne la Rox rek laa bañ koo wax mu ne la Rox laa jëppi Rox nga ñàkk sa baay ñàkk sa yaay ci ay jours yu différent nga war a nekk jigéen di di xëy salaatul faatixa di ko jàng di jàngal sa yaay werd salaatul faatixa fa mu tëdd mu mën a tekki mën a noyyu mais doomam nekk yu fi dul ay kaa toog kalaaraa kay def na nangam jëkkëru jàmmoor ga door a ma gëy naa diw zadoor nangam jóge foofu mu yaa gise kay nangam nangam ah mu na danga dof wéroo wéroo loolu du yëfu jigéen yow faam nga bàyyil di yàq faam keneen moo waroon a yàq faam nga taxaw yow rox ah daan ne lii du fi amee mais yow dangay yàq ay faam yow da ya ngay yàq miyaa gisi di yàq ku ne faam yàq yow yaa yàq faam yow yow bu ñu waxee bon yow si yow la ku am lu baax mu mer seetlu leen roxsu maam Ndiaye Savon bu defee benn geste bu baax defal ko ay fansam ay nitam roxsu mel na barke Serigne Babacar Sy ku am lu baax Sénégal roxsu mel iñaan nga bon nga soxor nga moo tax du ma ci yow li ma lay wax laay répété waat du ma la saaga ndey du ma la saaga ndey du ma tudd sa yaay ak sa papa parce que danoo génn àdduna duma la wax caga nga du la wax dara lenn laa lay wax te Sénégal yëpp di la ko wax mooy da nga soxor bon da iñaan ñi ngay tudd ñëpp ñoo la gën mi yaa gisee la gën juddu gën la ndey gën la papa ah maam Ndiaye Savon la gën ndey gën la papa gën laa baax jigéen ñi ngay yàq yëpp ñoo la gën ndax fi kenn toxuwaalu fi kenn jaarul ci ay gaal kattuñu kenn ci ay gaal. kenn ñëwul ba Europe di caga toog tubaab bi ba am ci ay doomu métis amul ku ko fi def visa ba mu jotee la maam njaay ñaan visa dugg ci avion yi garmi yi di dugg dem ñaan visa ñu tamponeel ko mu wàcc Paris toj ko ñibbi te loolu sa xol da cee métti woon waaw waaw da nga laay naan dem ba Paris di def nii di dof doflu nekk ci tali yi nangam nangam foofu la soxor commencé maam Ndiaye est-ce que day war a bante wu amul benn sofooru gaal buy taxaw ne kat naa mam ndax jaaru ci ay gaal yow rek yaa fi jaar ci ay gaal yow rek yaa ñëw ba fii di cagatu am ci ay doom yow kese yaa fi yor ay doomu métis yow kese amul keneen kon koo war a xas kan nga war a xas roog su kan Mia Guissé dem bërki démb Paris toj ko ñépp kontaan naan Mia toj na casino Mia nekk sa sœur nekk sa sœur di sénégalais comme yow nga war a taxaw ne Mia Guissé kat kontaan nanu casino de Paris toj nga ko mention spéciale tu es un artiste international vraiment Mia tu es artiste parfait mais Mia Guissé waru woon a teel a jël ah boîte boobu international la niveau bi Mia Mia yore waru fa mën a àgg war naa liggéey ba ci kanam doo jekk-jekk rek sànjaafu affaire yi di jël casino de Paris Roxy yaa soxor yaa bon yaa bon yaa soxor Sénégal yaa ngi nii bu may dëgg sa ndey ñoom ñëpp dañuy envoyé ay kër Sénégal bu ma waxoon data ndeyu rox ñoom ñëpp koy bind mais man maa ko bëggul bu ma waxoon bind leen data ndeyu rox ñëpp la bañ rox ñëpp la jéppi ñëpp ay kër la envoyé ay fleur gisoo kan mooy Dragé Live bi amul ñëpp ay fleur ay kër la ñuy xam nañ li may wax sénégalais deful de sénégalais bu aadama waxee waxu nit da koy dégg ndax ku ne xam na ne rox dafa soxor dafa iñaan dafa bon ñëpp ko xam ñëpp ñëpp. rox su ko am lu baax barki de moo njaay la maam njaay sa def lu baax juboo jubóole euh, maman vulgaire nogay kanaat di leen laay fan di jaay njaayu maman vulgaire pour dimbali ko ak jàppale ko rek rox su xolam bon na ci juboo googu rek neexu ko rox su da ngaa sax neexu la nga soxor iñaan bon nit ku mel na yow mosuma ko gis ma gis ci àdduna bi maa ngi lay xaar nag la set insha allah indaale romaine yi dégg aadama Bosse tey néegi mi ngi lay xaar aw ma jot du ma yàggal ci yow léegi nag damay jàll ci beneen cas moom dix minutes xoolal moom du ma yàgg ci moom de dix minutes laay wax ci moom li may wax da koy tuuse da koy tuuse de xoolal dina laay ba gannaaw suba be man dix minutes rek laa koy may temps dëgg ndayam ci dix minutes yi bu ma paree damay jàll aw ma temps li ci des ma bàyyi ko muy fortaatu ak ay cagaam yooyu mu yégal ci kaw emprunté jéegam yooyu di saa si seen baat yi danaata ah, ba kay noon ñoo kam ñaana ko ku ci am fit booy wax caga booy yëgal ca laay mu am fit ne dafa làmb dataam ay cokkam mu mel ne toolu gaso danga naan ko mu taal caméra wam wane boppam taxaw changé voix du dara mu wax ci aadama mu xool loolu ngay def ñi amul changé baat amul tëj profil amul changé photo amul def ay bopp ganaar ay photo profil déedéet da ngeen di génn ngeen dëggal seen bopp ne man la mareem Diagne wala man la ay Ayda Mbeng wala man aman la Soda Jaw maa ngi dëkk fii ak fii di live di wax ci Adama doo ko def du amul ay def lay yéegal ne leen defal leen groupe nag xam nga ñoom wéruñu liggéeyuñ pare dañuy taxawàllu ak cagatu profit danaan leen groupe lay def dugal leen ci ñoom ñëpp jéeg yooyu muy dugal groupe lay def dugal leen ci ne leen na connaissance sa profil nag parce que Adamo dafa garaaw ba pare Adamo il est très dangereux na ku nekk changé sa profil def ko bopp ganaar wala bopp kanaara wala bopp mbëtt wala bopp gaynde mën a jàkkaarloog Adamo mais Adamo bu la xaamee wee rek da lay def leen benn groupe dugal leen ci ñoom ñëpp benn groupe léegi nag ñooñu lay jël nag bu waxee ba gat gi dagg ñoom lay jël yéegal bu defee ñu naan ñuy sa ñu sensé baat bu sensé baat yi ah, am na ku tudd xaritu xaw ma nan moo gën a wéree di ñëpp ah, ma ne ko yow de du ma la tontu ba ma lay tontu yàlla naa katte ganaara dama am seen jot man seen bataloo laay doxaan ndeyam muy rog su mi aw ma seen jot yéen caga almaañ bii laay dëgg ndeyam man danaa tontu ay ñoo xam ne dama am seen jot yéen lu leen neex aw ma seen jot waaw rox soxor nga iñaan nga bon nga doomu aadama du soxor doomu aadama du bon doomu aadama du iñaan waaw gis nga nit doo soxor doo iñaan mais da nga soxor da nga bon danga iñaan waaw sénégalais yaa ngi nii laaj leen koo ci laaj ndax Roxsu daa soxor danaa la waaw dangaa bañ Roxsu danaa la waaw dangaa jëppi Roxsu danaa la dama koo jëppi moom rek laa bañ kenn bugg la kenn amul ku la bëgg ci sénégalais yi amul parce que sa jikkoo leen neexul nit kenn du ko bañ sa jikkoo leen neexul mooy lan soxor gi nga nekk ci yow ak iñaan gi ak bon gi ñëpp koo wax day commentaire damaa bañ damaa bañ rox damaa jëppi rox moom rek laa bañ vidéo bi ma la defal dama lire commentaire yi neexoo kenn ñëpp la bañ ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp parce que da ngaa iñaan da nga bon da nga soxor soxor baaxul bon baaxul ni da ngay féexal soxol maam Ndiaye Savon ni mu mel yàllaa ko ko def lim la rawee moo bëri yàllaa koo teral muy doon garmi lool yàlla aj ko ba ci kaw niveau bi kawee lool bokkut ak sa niveau yow fii nga toll maam Ndiaye Savon ca tuwee sax doyewul ko Kiné Badiane fi mu toll ci néegu sëyam ak li mu liggéey ba yegg si fii mën a am way wure wii yàllaa ko ko defal mi yaa gise noonu permanence sa mbaax set wecc yow nga iñaan ci loolu soxoree leen ñoom ñëpp bu nee nii rek nga taal sa laay woo sa ñetti nit taxaw naan mama naaw ak papa naaw day yow lan war a kaa yow mii yow mii jaar ci gaal yi safooru gaal yi katee la fële euh, nu mu tëddati libi ba nga yegg si Allemagne ñëw di cagatu far topp tubaab yi ñu lay katt ba biiral la nga am doomu mitis kon yow xanaa nag da war a kaas sa bopp danga naan man de mamaanaa Allemagne doomu mitis laa yore ab tubaab ma kaawal sa bopp te may ñële jàmm. fii kenn jaaru fi ci ay gaal yow rek yaa fi jaari gaal yow ak Soko moo tax ngeen nekk ay xarit mën a ànd parce que nit dëgg-dëgg man jàpp naa ne dañ koy tamponil visa mu jaar fi nit ñi di jaar yaa ngi dégg waaye boo xasee ba bokk ay jën ay rabu àll ay sëdda ay yaabooy ay sindax ay bët bëtër ak jargoñ ay gaal. pour voyage maam nag ba muy ñëw Europe moom ci ay visa yu leer na jaar wax dëgg yàlla jaar fam wala jaar mm-hmm. kon nag gàcce ngaalaama du ma sori ci moom nag gars yi du sori ci moom di ko may bës damay continuer Mia Guissé mention spéciale Ndiaye Amina a ngi nii Amina njaay mii nag moom la Rox di défendre ba tax muy xas kinne Badiane ak di ko yekkalu lu bon ak jëkkëram mënoo koo défendre parce que kii jigéen la goo xamante si nii ñi mu tas seeni sëy moo bëri Kiné Badiane kenn mësu koo dégg ci ay werante Kiné Badiane kenn mësu koo dégg ci ay détails Kiné Badiane mës sa tooñ doomu aadama bu wax ak yow sax kàddoom du jóg naa njaay mii ñi mu tas seeni sëy ci senegal dafa bari mbàkke mbàkke bi ko takk bu ko xamoon du ko takk naa Ndiaye taat yëpp da koo da koo tatué yaram bi yëpp da koo tatuwaas maa ngi fa tey yor yëpp fii mais jigéen dañ koy suturaal loolu la gaa yi wax. Adama baalal ko sarax ko loolu kenn du ko def lépp maa ngi moom fii la mu yónnee woon yow jëkkëru jàmmoor nga jël say taat jël say photo say taatu neen sa lëfu neen tatuwaas sa yaram di ko ko yónnee pour lan te nga am jëkkër yow. Kiné Ndiaye me Kiné Kiné Badiane mer ci loolu yónnee ko Matas di wax di waxtaan ak moom. Amina Ndiaye jël vocal yeeg yëpp kole ko boole ko dugal ko ci internet bi di ko jaay vulgaire déedéet Kiné du saaga du wax lu ñaaw vulgairul Kiné Badiane nit ku baax la. dama ne la gars yi nanu ànd soutenir Kiné Badiane dama bëgg commentaire yi li rox di bañ a gis je kinne Kiné ndax nee na lu ma wax ko commentaire yi ñu def ko lu ma leen wax la ñuy def. je suis kinne Badiane ci commentaire yi moo wax leen Kiné mooy kan Kiné am na doom bu mag bu tudd Mohamed am nag Bamba mii doom Kiné Badiane nit ku baax la kenn gënu ko je suis Kiné Badiane ba mu gis ne gaa yaa ngi bind je suis Kiné Badiane xol bi di gën a dagg je suis Kiné rek ci commentaire yi man lu ma wax commentaire yi moom lañuy def Kiné Badiane nit ku baax la ba sëy jotee dafa sëy ci faratas yàlla ak sunnas Mohamed pourtant ñu bëreeg may won naan ma Amina Ndiaye mii doomu ndeyu Wally Seck la ñu bëreeg may woon naan ma Amina Ndiaye mii dafa bokk ak Viviane déedéet ñëpp ko bàyyi. yéen xamuleen xaritu xaritu kës xaritu kees bu Amina Ndiaye tuddul sax ñooñu xaritam kës mi ngi tudd Koura Gueye léegi Paris la nekk kooku bàyyi na ko. Amina Ndiaye ku ko xam-xam kook ay da ndaxte Ndiaye bàyyi na ko eh umu provocation kii xaritam la woon bàyyi na ko ñépp a ko bàyyi sëñ yu bari la tas xamu leen Amina Njaay de Amina je suis Kiné nay dàqe e wuy ma nay ànd ak ay kër nag je suis Kiné Badiane mu ànd ak ay kër waaw très bien tere bien rox su ñëpp kenn dégluwu la ñëpp la bañ ñëpp man lu ma wax la gars yi di bind parce que xam na li may wax jigéen moo doy waar pexe jigéen moo doy waar barki Serigne Babacar Sy comme que jigéen a yëngaloon Sénégal waxuma laa jigéen mën naa yëngal sëy Kiné Badiane jëkkëram góor la te xale la ko baax la ko ko bëgg la Kiné bajaan dafa jëloon kii def ko xarit ñoom ñaar ñuy ànd mu xam ko bu baax ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad ñu xamante bu baax moo tax xarit du mokk yow nga mën a jëkkati jëkkëru jàmmoor sa jëkkëru xarit nga foto sa lëf foto say aw rek génnee say yónnee ko ko play guddi ci jëkkëru jàmmoor mais ki mooy yay réagir kii mooy ku bon ki kii du ko baax dafa bëgg a saltel nag image su Kiné Badiane ak jëkkëram Baba mais kenn du ko seetaan sénégalais yi du ko seetaan ah ah parce que Kiné Badiane bu doon maasu rox gi la maanaam caga caga baraajo yooyu caga yi nga xam ne danoo jaar ci gaal yi ñu katt leen ñu jaaree libi ba ñëwee Europe li njëkk a def mooy ŋaay yi seen lëf li xool ndax si ndax deewul ci biir Kiné bu meloon noonu kenn du ko défendre déedéet mais Kiné wayu baax la am ci réew mi ba sëy jotee dafa sëy baax lool te yaru Kiné bu dee wax ay kàddum doo ko dégg lu baax ndax ku bëri yërmande la ci doomu aadama tey wax jii bu ko amee tey war nañoo mën a taxaw senegal gi yëpp soutenir ko xam ne kii du Kiné ndax kenn du ko dégg ci ay détails xam ngeen li ma leen di wax ngeen bëgg a jël Kiné Badiane maasuk rox gi di ko yàq naan moo ñàkk fay daal jëkkëram a cagaag la ko koy du ko baax wax naa leen rox su baaxul yéen ñii seetaan rox su laa mën ta comprendre du nit ku baax ku bon la baaxul je suis Kiné Badiane yéen ñëpp bind leen ko ma doog continuer nagaaw tuuti je suis Kiné Badiane je suis Kiné ci commentaire yi mu gaaw je suis Kiné merci beaucoup I am Kiné non I sax baax na anglais bi baax na français bi baax na Kiné Badiane laa bëgg ngeen soutenir fu ni laayifee di ko saaga dem leen ubbi lëfal ndeyu ñu koy laayifal di kuy xas jëkkëram wala muy xas Kiné ubbi leen lëfal ndeyam ndax Kiné deful fi lu bon Kiné cagatuwul wanewul lëfam ci àdduna bi déedéet toppul jëkkëru genn dafa sëyoon yàlla weddi mu sëyaat Amara dammi il fazzoletto dafa sëyoon yàlla weddi mu sëyaat ba mu sëyaatee nag ci ngor la ko defee ak dignité ak diñ waaw tey jii bu toppee jëkkëram pour bëgg a tas sëyam mais yoon na mu réagir ku nekk danga koy xool bu doon yow nga am jëkkër neexul ngay nekk ci sa néegu sëy jigéen jóge fële di jël ay photo lëfam ak ay awraam di ko yónnee sa jëkkër mais neexul ci xol neexul ci lii la mais kenn nit ku baax la ah. yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko gudd fan may ko wér waaw dama ne Kiné Badiane yàlla na la yàlla defal jàmm may la wér gudd fan man maa ngi derrière toi sénégalais yi ñu ngi derrière toi sénégalais ñoo ngi derrière toi man maa ngi derrière toi Kiné bu fekkoon da def lu bon ci réew mi barki Serigne Babacar si bu ma nee salaamaaleykum yow laay njëkk attaqué mais musuma laa gis nga dugg ci ay détails man boo Kiné Badiane musuma ko gis fii ci senegal ci audio yi ñuy dégg ak coow yi musuma koo gis Kiné Badiane musuma ko gis maa ngi mi ngi doog a am tey waaw looloy dëgg loolu looloy dëgg waaw waaw je suis Kiné rek je suis Kiné rek Kiné seul lii laa bëgg rox bu leen nangooti mu yàq benn jigéen bu waxee Kiné Badiane lu ñaaw dem leen ngeen fekk ko fa ubbi la fal ndeyam bu leen ko ragal bu génnee ay kàddu jëmale ko ci maam Ndiaye Savon fekk leen ko fa ubbi la fal ndeyam bu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci Mia Guissé dëgg leen ndeyam nii la ñuy xeexee mais doo fi nekk di ko ragal ak di sóoraale tàppate rox su nangam musta am dëgg ci kenn. parce que li muy wax léeru ko te xamu ci dajew ndeyam li muy wax lépp lépp maîtriser wu ci gat tooñ moo ko ci dugal ak tooñ nit ki. yow mi yaa gisee bu toj casino di Paris nekk de seur doo ko waxal lu baax xanaa ne waru koo woon a teel a jël ak lam ko jël xol bu bon ak soxor ak iñaan munta weesu loolu maam Ndiaye Savon miy dawar oto yu rafet di jubóole ay nit di jël xaalisam di ci dimbali nit yor ay employé mais mënoo koo soutenir sa sœur yëkkati ko mu kawee xam ne li ko dal ni yàlla ko tegal moo ko dogal mu toll fii ak turam déedéet da ngay jëm di ko fakkastal di ko yàq ak di ko waxal lu ñaaw ak di ko noonoo ne bajaan mii sa sœur ah li tax kii xamul affaire u sëy mooy dafa sëyul moom dañ ko doon kat muy am doom di teg sëyul mais bu doon dey sëy sénégalais takk ko comme Kiné Badiane mii li ko dal mu xool ko comme Kiné Badiane ah ah rox su du réagir nii sëyul dafa ñëw fii jaar ci gaal yi soxla ay kayit yaatal lëfam li jox ko tubaab yi ñu katt ko mu biir am ci ñaari doom am ci ay kayit lii la def amul leneen lu mu def amul leneen lu mu def ñëw topp tubaab yi ñu biiral ko pour moo mën a am kayit sëyul moo tax xamul loolu lépp. du dëgg léegi nag ma yàlla ma yàlla leen ma je suis Kiné bala maa jàll je suis Kiné ci commentaire yi mu gaaw.

bàyyi ko si njaboot gi la bokk. daa def erreur juum Amina njaay amul problème waaw Amina Ndiaye amul problème su bokkee si njaboot gi moom waaw xam nga njabootu Faramaren gi nag dafa yaatu waaw Kiné moom waaw Amina Ndiaye dinaa ko bàyyi dinaa bàyyi Amina njaay amul benn problème dinaa ko bàyyi duma ko wax lu ñaaw duma ko wax dara ndax si njaboot gi la bokk. waaw ah, te man daa ku ne xam ne dama am kilifa waaw ah, dama kilifa te am na kilifa yoo xam ne moom samay kilifa la du nu wax dara ma ci teg dara waaw lu ma wax lool rek loolu laay def du ma ci teg benn baat waaw mais nag góorgóorlul Amina Ndiaye góorgóorlul bàyyi yii bàyyi détails yi bàyyil détails yi ak yii ngay def baaxul bàyyil yi ngay def waaw moom moom dootuma waxati ci yow moom wax dëgg yàlla wax moom dootuma ko defati ci yow moom bàyyi naa la moom man moom wax dëgg yàlla dootuma la tuddati fenn Amina njaay du ma la waxati da waaw fi mu toll nii moom boo tëddee nelawal waaw waaw naa ko jéggal naa ko xam nga njaboot gi moom kenn mënu ci wax dara waaw mhm. noonu la waaw man damaa ami kilifa léegi nag mais nag ki ne ku baax la ki ne ku baax la waaw Amina Njaay moom hmm, bàyyi naa ko barki sëriñ Babacar si même bu fekkee sax moo tooñ ki ne duma ko waxante dara boo tëddee nelawal waaw boo tëddee xolal nelawal ba sa gannaaw ba ndang te xam ne man aadama boos day néegi ni moom dootuma la waxati dara bàyyi naa la jéggal naa la waaw waaw dootuma la waxati dara waaw ndax ci njaboot gi la bokk moom faramarin la waaye faramarin la te xam nga faramarin yi moom kenn mënu leen a di di di kii di di di xam nga waaw dafa doy waar rek mais amul problème amul problème léegi nag léegi nag Amina Ndiaye moom xam nga bàyyi naa ko quoi bàyyi naa ko léegi dootuma ko waxati dara waaw ndax man waaw dé dégg ngeen waaw kay foofu laa yem nag waaw foofu yem mhm. léegi na